కింద వదిలిద్దాము లగేజ్ ఉండి బిగరా ñu ngi leen nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal jam uh, di ziar ñëpp di baalu Euh, musal ñu ci bépp feebar boo xam ne tey mu ngi dugg ci àdduna bi sonal àdduna bi ba nga xam ne dafa yàq euh, activité yëpp ci doomu adama yi doom def euh, loolu tey doxantu woon lañ ci côté Tëngéej doxantoo ba côté Tëngéej gis nañ ne Tëngéej vraiment activités yi doom dox yëpp dafa gën a wàññeeku activités yi wàññeeku na da ngay xool magasin bitig yi yu bari dañuy tëj moo ne la ñëpp kenn ku si nekk sa xel mu ngi ci Euh, feebar bi naka lay dundee duggee doomu aadama bi moom moo tax ñu si bari ñu ngi gën di moytu di gën a jël seeni matukaay te loolu ñu euh, remarqué nañ ko ci côté Tëngéej bi euh, lenn lañ ci remarqué waat mooy maanaam liggéey bi dafay metti wàcc bi day metti moo tax souvent da ngay xool arrêt car yi da ngay gis souvent nit ñi dañuy bari foofu carrément pour ñu jóge foofu ci seen arrêt car yi mën a dem déplacement boobu daal mooy xaw a jafe waaw yooyu moom xaw nañ ko faa seetlu. mais vraiment ku nekk daal mu ngi moytu ku nekk mu ngi moytu waaw ñu ngi ñaanal ñëpp tamit jàmm boo seetee dëkk bi léegi ñu bari ñu daan def seen activité léegi defatuñu seen activité ndax euh, affaire bi mais nag euh, ah nit ñi daal ñu ngi góorgóorlu ci cet gi ñu ngi góorgóorlu ci toog bi te vraiment loolu yëpp am solo waaw loolu yëpp am na solo di tàggatoo ñëpp euh, di àndandoo ak ñëpp tamit vraiment di leen gunge ci yii fi xew ba daal ñëpp nekk si jàmm rek ñëpp mën a dégg tamit li nga xam ne mooy conseil yi ba ñëpp nekkandoo si jàmm waaw kon boog euh, ñu ngi dinañ jàllaat feneen tamit wanaat leen foofu tamit nu mu mel rek bu ko defee ñuy àndandoo ak yéen euh, ba yàlla defandoo jàmm ñun ñëpp ñu doo jàmm gi si Sénégal sentirandoo tamit jàmm gi si àdduna bi parce que fu nekk rek. Euh, nit nit ñaa nga fa ñu ngi ñaan nag nit ñi yal na leen yàlla defal jàmm waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm fépp fu nit nekk ci àdduna bi rek yal na la fa yàlla defal jàmm ci daraja yenant ñu ngi nuyu ñëpp beneen bi moom ñu ngi ñaax askanu Senegal yëpp daal mooy képp ku nekk rek ku mën a dimbali doomu aadama naka dimbali kenn ku si nekk boo tanee sa moroomu doomu adama ñu ngi ñaan nga dimbali nga dimbali doomu aadama yi pour coono bi nga xam tay gis nañ ko mu mu nekk si doomu aadama yëpp tey loolu ñu ñaan mu teggeeku te ñun ñëpp ñoo mën a jàppalante pour affaire yi gën a mën a wàññeeku ci doomu aadama yëpp ñu ngi ñaan yalla def jàmm di def sutura dàq fi musiba yi yëpp ba kenn ku si nekk delluwaat ci lépp lu nga xam ne ne tey mu mu ngi si doon gis boppam mu delluwaat di si gisaat boppam ñu ngi gërëm tamit président de la république wax dëgg yàlla ci taxawaay bi waaw di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci àdduna bi waaw yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm def ci Sénégal jàmm def ci kër yi jàmm def ci àdduna bi jàmm ñaan daal ñëpp daal yàlla defal leen jàmm mais ñun dinañ àndandoog yéen ci fépp si euh, roq-roqaan yi ba ngeen xam sensibilisation bi yi def sens euh, bi bi ñuy def ci dëkk bi te loolu yëpp dafa am solo waaw loolu yëpp am na solo tey moo tax avancement bi tey am na wax dëgg yàlla tey boo xoolee li dal ñëpp daluñu loolu lu ko waral parce que sensibilisation bi moo ko waral ak ñaan yi nga xam ne doomu aadama yi bàyyi di ko ñaan ak suñu docteur yi yu nga xam ne chaque jour ñu ngi ciy liggéey bi di sonn wuñu bàyyi wuñu yal na yàlla fay ñëpp daal can neck to fee. savoir quand la pandémie s'arrêtera. Les dégâts et les pertes humaines à travers le monde sont déjà très lourdes. Le traitement de cette infection consiste uniquement à soigner les symptômes suivants. Fièvre forte ou modérée, maux de tête, toux sèche et atteinte pulmonaire modérée voire sévère qui peut devenir fatale. Il n'y a pas encore eu de traitement officiel pour combattre le virus et ses dégâts terribles. Nous devons, ensemble, arrêter la propagation de ce virus. Voici les conseils pour éviter d'être contaminé par le virus. Lavez vos mains avec du savon pendant 20 secondes, puis utilisez du gel antibactérien. Gardez une distance de sécurité de 2 mètres. Ne touchez pas votre visage, votre nez ou vos yeux avec vos mains quand vous êtes à l'extérieur. Restez chez vous et suivez les consignes du confinement. Portez un masque et des gants si vous êtes obligé de sortir. Si vous êtes infecté par le coronavirus, alors suivez bien ces consignes pour éviter de contaminer les populations. Voici les conseils à appliquer pour sauver vos vies et celles de vos proches. Évitez les rencontres sociales. Prenez des nouvelles de vos proches par téléphone uniquement. Si vous savez qu'un proche est infecté, n'allez surtout pas lui rendre visite. Évitez les déplacements en bus, en voiture ou en avion, sauf si ceci est indispensable. Ne touchez pas l'avant de votre masque avec vos mains nues. Le corps médical, les pharmaciens, les infirmiers et tout le personnel hospitalier travailleront pour vous accueillir et vous prodiguer les meilleurs soins malgré l'épidémie. Nous soignons vos familles. Ne sortez plus et respectez la quarantaine et les consignes de la police. Soyez responsables et restez chez vous pour sauver des vies. Bonne santé à tous et que Dieu vous protège et protège l'Afrique.